salaamaaleykum mbokki Géoul asalaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi fii tey ci Géoul ci école 3 tey nag euh, Géoul TV wàcc fii ci li nga xam ne mooy école 3 comme ni ngeen ko waxoon rek fas yéene nañu euh, semaine bu nekk rek mardi bu nekk rek ñu wàcc ci école yi xool jafe-jafe yi fa nekk xool euh, naka la ñuy yore li nga xam ne mooy xale yi ci école bi tey nag ñu ñëw fii ci école 3 fas yéene jane ki nga xam ne yaakaar naa ni. tey liñ naan góor baax na jigéen baax na tey muy directrice boo xam ne moo nekk fii ci géewul mën ne moo moom rek ci géewul muy loo xam ne fierté ci jigéen ñi tey mën nañu jigéen ñu waaye tey ñu janoon moom fii tey ci li nga xam ne mooy école droit mu jiite ñi nga xam ne ñoo fi nekk euh, directrice ñu ngi lay waaw Alpha leen di fay bu baax hmm. di leen ziar yow ak sa équipe di leen dalal jàmm ci école bi hmm. wa tay ñu tew fi ci eh, li nga xamne mom moy école toi fekk la fi muy mm-hmm. ferte ci jigen ni ndax fiñ ko ta jaar ñepp gis na ñay goor lañ fa fekk tay ah, tay ah, ñu bëggoon nga xam kan moy eh, tay Ndeye Codou wa man Ndeye Codou sa la tuddu mm-hmm. dekk ci dëkk juddoo ci dekk bi dekk ci dekk bi mm-hmm. ma ngi commencé jàngale en 2000 sama premier poste ngay jawa def na fa 2 ans après ma dem ngeewul village def fa 3 ans bima ma jógee ma dem géewul 4 def fa 16 ans ren nak la ñëw fi gagné poste direction à Guéoul 3 en remplacement de monsieur Mortal Samb mhm. ren donc octobre bi 2021 mooy sama première année à Guéoul 3 maa ngi fi ñëw en tant que directrice. Mm-hmm. waaw suñu teewaay fii. Mm-hmm. mu nekk loo xam ne tey ci muy yor ay xale. Mm-hmm. di nekk loo xam ne loo xaw a jafe la. Euh, boole ci ñu leen di jànkonteel ci li nga xam ne moom mooy fi nga nekk ci bi. mu nekk école boo xam ne mi ngi nekk euh, fi ñuy wax Nimzaat. ci ci ci ci mu nekk fi xaw xaw a àlle loolu. tey yan jafe ngeen jafe-jafe ngeen di jànkonteel ak xale yore bi. waaw Alpha jërëjëf. vraiment occasion bi ngeen ñu may pour ñu wax suñu pour ñu exprimer wu lii moo jafe woon dañ daan pour di ko wax diggante miir yi ci école yi mais tey ak yéen bi ngeen ñëwee permettre ngeen ñu mën a wax jàkkaarloo population bi jàkkaarloo ñu xam problème yi am ci Géoul 3 xam naa problème yi moom bëri na ci Géoul mais rawatina Géoul 3 bu ngeen xoolee li ngeen gis fii xam ngeen ne Géoul am na ay problème parce que bu ngeen xoolee bunt yi benn du tëju gis ngeen classe yi yàqu fi nekk classe yi am na ay problème bunt yi du baaxul tëjuwul fu neex waay jaar gis ngeen douche aussi ni mu mel xam naa dañ ci dellu soir rek mais yàqu-yàqu yi moom bay na ci école bi ah, ñu gis bi ñuy dugg si mhm. ah, ñu ngi leen ñi teeru ci ah. ñu gis ne école dafa a am tëju war a am kubéer mhm, mhm. ñu gis yi daanaka ñaari porte yépp dara nekk nekk vàgg rek lan moo waral porte yooyu dañ te leen ko ba léegi rek gisuñu ci benn ci kii non bi moom ba fi ñuy def fekk bunt yi bi ma defee sama premier conseil sama première réunion ak maire si loolu laa njëkk a wax parce que école dafa am sécurité dafa war am sécurité kuy dugg ñu xool looy dugg kuy génn ñu xam fooy génn mais bu oto bunt yoo xamante ni benn tëju bunt yi baaxul dafay yàqu dara baaxu ci bunt yi benn du tëju baaxul amul bunt amoo fekk yëpp ñu dindi ko benn baaxu ci du tëju ndax ndax ndax loolu nekkul loo xam ne risque la ci yéen ñi nga xam ne yéen fi nekk ak matériel yi nga xam ne yéen ko fiy denc muy muy faral bi yenn saa yi gis nga loo xam ne amul bunt tey fu nekk waay jaar ndax amul fii benn bis boo xam ne tey mhm. jëlal na leen fi dara wala yàqal nañ leen dara ci biir école bi loolu moom am na fi moom parce que pas plus tard que weekend bii passé rek classe CM bi mhm. dugg nañu fa fi ngeen filmé sànq ci fenêtre yi foofu la kooku jaar mhm. dajji armoire bi jël ay ay ay kay jël ay bagage élève jël ay bagage maître daal ak ay sóom ban loolu moom xam nga wóorul école bu lu tëju la neex waay jaar loolu moo tax sax parfois rëbb ne dañuy ñëw toog ba guddi fekk muy xel ñu may woon ni mu robinet baa ngi xel loo fi def ñu yàqu bon xam nga ne loolu am école amul sécurité loolu moom jaar dafa war a bunt yi war a tëju mais fekk neex waa jaar loolu moom jàmbat nañ ko fu ko fu ne fi ñu toll na ñun mais amaguñ incha allah ngi ci kaw. waaw ñu gis ne bi ñu duggee tamit ci biir classe gis nañu xale yi. Mhm. yi jàng. Mhm. muy la jëm ci mhm. amul lumière ci biir classe yi. bon école bi nak bureau bi rek moo fa am lumière hmm. classe amul lumière loolu tam suñu jàngoro tamit bëggoon nañu tam ku ñu jàppale parce que période bi ñu nekk ay janvier février bu suba teel boo xëyee boo tëjee dafay lëndëm bon nak buñu sañ daan ci jàppale pour école yi am pour classe yi am courant pour ñu mëna a mën mais à part bureau bi classe yi amul ben installation électrique ben lampe dara amu fi bu tax loolu mom jafe-jafe la la ndax ndax ñàkk courant boobu ci biir indi jafe-jafe ci ñi nga xamné ne ñoo fay jàngale wala ci élève yi ba ba li nga xamné ñi ngi koy gis wala ñoom it li ñu bind di nekk jafe-jafe ci ñoom dëgg la loolu kay jafe-jafe la parce que mën ne en période de sedd bu yegsee janvier février wala heure bi sax day gën a lëndëm mm. bu 5 heures jotee wala 6 heures dafa lëndëm léegi nag classe lëndëmee li ngay gis li ngay bind boo tëjee yëpp soo bindee du leer ci xale yi dana am ay jafe-jafe ci jàngale am ci kii jàngale am ko ci xale yi aussi loolu moom problème la moom vraiment hmm. problème la moom. waaye ñu gis tamit ne xale fu mu war a nekk fu mu nekk jumtukaay lu mel ne toilette. Hmm. dafa war di dafa war di nekk. Hmm. dafa war di jege war war koo jege ndax xale heure bu nekk rek a soxla boppam. te am na ñoo xam dañuy dëkk fu sori. ñu ñu jógee seen kër delluwaat fële dem di jël si waat ak yooyu. ñu gis te eh, li nga xam ne mooy toilette yi nekk fii gis nañ daanaka benn toilette fonctionné ci yëpp ba mu daanaka ba mu yàqoo yàgg lan moo waral eh, yàqu-yàqu yooyu comme da door a ñëw xëy na da nga ci am indi ay solution ci yàqu-yàqu yi nga xam am na ci euh, waaw comme ni nga ko waxee dëgg la toilette bi moom benn baaxu fi toilette moom dara baax boo xoolee xale yi sax bu ñu dem toilette dañu dem ci ginnaaw bloc bi te lu aussi wóorul parce que ñu ngi doog a jógee ci nawet bi ak ñax yeeg yooyu li mën na fee làq te loolu tam hmm. te doomu jàmbur boo da nga ko war a sécuriser espace am sécurité a nekk loolu moom jafe aussi école bi amul douche bunt yi baaxul bunt yi moom gis ngeen ko hmm. amul benn bu am bunt fu neex waaye dugg

topp ko. ñu mhm. gis ci ginnaaw fi mu nekkoon. Mhm. mu nekk risque boo xam ne danger boo xam ne. Mhm. Eh, daanaka la boo xam ne ay tur la def. muy ñetti tur yoo xam ne tey ci xale. mu nekk risque danger boo xam ne tey jii yéen. waroon nañ cee sax waroon ngeen cee teel a ngeen teel ca woote. pour kilifa yi gis ne lii kat danger ci xale yi. bala faa bala faa bës ndax yaa ngi xalaat jéego yooyu pour nga dox loolu. waaw ni ma la ko waxoon ci kër Delbel rek ñun bi may door fii bi ma woo nañu aussi parents d'élèves yi woote nañu réunion fii woo population yi ñu ñëw pour xool yàqu-yàqu école bi pour ñu ànd wut saafara loolu nag ñu ngi ci def nañu bilan def nañu woo nañu menuisier métal yi woo ñëpp woo ñu far a defar yëpp ñu war a intervenir pour ñu defal ñu bilan pour ñu defal école bi mais nag moyens yi moo jub bu am na nag wax def nañu appel woo ay bonne ay bonne volonté pour ñu jàppale ñu ak population de quartier bi am na nag déjà ñu ñëw manifester wu joxe déjà affaire baangi ci la laxaat mi ngi défaral xam nga comme problème dafa bari li njëkk moy tëj école déjà parce que bu ñu ko tëjoo rek du ñu mën ci dess école bo xamni amul buntam lool mo njëkk nek problème ñu suñu priorité moy mooy école bi défar classe ba pare suko bi gaatuwaay dëgg la mais li ma la wax rek moyen mo amul mo dañ koy benn benn rek en tout cas population yi ñu leen war nañu leen woo bonne volonté tey ñu ngi ñëw di contribuer léegi lu ñu jox rek incha allah ci école bi la jëm di sawar man ren laa fi ñëw mais fekk naa problème yëpp mm. ren mm. mais bu ma ñëwee ñu jaaxle bu mag laa am ci école bi mm. bu mag a mag ma woote réunion woo woo sama équipe bi ñu waxtaan ñu solution nag xam naa bis ngeen am changement incha allah. gis euh, dina dala jàmm ngay door a ñëw ci li nga xam ne moom mooy école bi. Mm-hmm, mm-hmm. Eh, ci jigéen. Mm-hmm. nga ngay jiite ñoo xam ne daanaka góor la comme sunu sunu dund comme géewul réalité sénégalais. Uh-huh. jigéen moom daal góor a ko war a jiite. <laughs> tey ñu ko si jigéen jiite góor. Uh-huh. ci ci ci moment yu mel nii ba indi la ci école boo xam ne difficulté yu bare uh-huh. nga fi. xam ne ñoo fi nekk ak ñi xam ne autorités yi nga xam ne la ñu jàppale la ci surtout jigéen ñi nag. waaw d'accord waaw li ma waxoon rek maa jigéen dañoo bëgg a ànd relever le défi. ci mm. école bi. comme li nga waxee sànq bi ngay door gi si giwul c'est première fois am directrice mm. mais directeur directrice c'est la même chose liggéey la bu ñu la jox rek nga war koo doxal mm. boo ñëwee fekk nga fi ay nit dangay collaborer ak ñoom mm. di waxtaan ak ñoom di diisoo ak ñoom ñu de ah, parce que affaire bi njiit yàllaa koy sàkk du gën a xam du gën a mën manam yalla mo koy sax bon boo fek fekk say nawle ñu def da ngay waxtaan ak ñom diisee ak ñoom xàcceew ndoo dóor ak mm-hmm. du ñak nak ni décision finale man ma xé sama décision man ma ko parce que man ma fi nek mm-hmm. mais population aussi bima ma may collaborer ngi collaboré ñoom mm-hmm. maanaam dama liggéey bu amul góor amul jëm compétence la rek fu la teg war ngaa mën liggéey parce que yëf li ma la wax duma ma si gan depuis 2000 ma ngi ci enseignement bon ma ngi bëgg a 21 ans foko def yaa ngi bëgg a ci yëf mais fi ñu am benn problème ngi koy doxal comme il le faut comme il le faut maa ngi koy doxal liggéey bi tam tam sama ñooy fekk aussi ñu ngi collaborer ak man sans problème mm. waaw autorité aussi am nañu yaakaar jigéen parce que poste bi c'est réservé aux dames mm. ma compétir gagné ko bon nag li ñuy xaar rek mooy ñu jàppalante liggéey mu jëm kanam parce que muy ko muy man muy ñu fi nekk ñëpp defe naa benn bi ñu am mooy la bonne marche de l'école pour lan pour la réussite de tous nos élèves war mm. rek moo ñu fi ne pour élèves réussir pour loolu nag àndandoo liggéey rek tek ko ci ay charte yu leer loolu rek moo fi indi. moom moom laa bëgg tamit ngay ngay njiit yi di njiit bu bees. te bu gisee njiit bu bees doxalin bu bees. feem yu bees. waaw nga war a indi say feem yu bopp war a indi sa doxalinu bopp. dëgg la war a joyanti. war a joyanti ndax loo gis rek xëy na. mën naa am yàqu-yàqu am fa wala defaraat waaye yow mi nga xam ne da ngay defaraat ndax ñu xam say feem. tey nga war a jub ci loo xam ne tey jii. war nga am defaraat boo xam ne da nga ko defar ci wàllu xale yi. jubbanti leen ñi yeneen yoon. ndax ndax loolu yaa ngi ci waajal yaa ngi ci waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk

parents d'élèves bi may Chara ma cité ko wax na ne moom chaque mois na dajale population yi ñuy waxtaan xool li dox ci école bi xoolu doxu duñ ci ay solution di participer bu baax déjà loolu bon lu baax la comme ñoom déjà nangu nañu ñëw bu gis ci biir gestion école bi rek loolu lu baax la école bi communauté bi moo ko moom population yi ñoom moo ko moom dëgg yàlla ba pare coro kii itam njàngale bi ngay wax aussi femme confiée école mu jóge fi defe naan itam su ma ñëwee damay seet lu baax ma téye lu bonul lu bon ma joyante ko

nekk na loo xam ne lu xaw a jafe la. Mhm. lu jafe la nekk ñu tamit te fi ngeen nekk. Mhm. muy foo xam ne xaw na sori loolu. Mhm. Euh, dëkk bi. Euh, mu nekk loo xam ne lu xaw a doy waar te ñu gis tamit. bu ngeen di jàngale heure bu ngeen di jàngalee. yenn saa yi xale dugg ci cour bi di football. di dàqante ndax ñàkk porte yooyu ngeen amul. ndax ndax solution boobu. yéen a ngi waajal. Mm-hmm. pour ci loolu jéego yi nga xam ne tey bu ngeen bu ngeen di jàngale heure yi. Mm-hmm. xale yi dana leen may temps. pour mm-hmm. pour yi nga xam ne ñu ngi koy dégg ñu ngi lay déglu. xamal ñu xam ne xale yi ñu ngi fi di leen di leen indi ay jafe-jafe yenn saa yi ci heure yi pour pour bu ngeen di jàngale. waaw gis nga loolu depuis le début maa ngi koy wax que bi ma ñëwee am na lu ñu ma souligné nii xale yi ñoo ko fi yàq. parce que am na benn vidéo bu ñu ma wan que

biñ njëkkee set setal lañ ko dindi génn ci biti wax naa ko ak parents di leen ne ñu ñu ngi yàq nag ñu ngi defal mais bis bu ñu tëjee suñu école bi daan jël suñu ay mesures parce que mënuñ jël suñu ay disposition dem fu ne def lu ne pour tëj suñu école pour sécuriser ñuy yàq yàq daganul wax nañ ko fii keroo léegi nag comme ni nga wax rek li ñuy ñaan mooy defal ba tëj classe école ba pare bu tëjee ba pare nag moom lii moom dana dakk ci nii wala ci na parce que duñ defal kenn ñu gis tamit euh, ne fii ñaata classe moo nekk fii ci. fii six classes moo fi nekk. CI ba CM2. Euh, ñaata nombre élèves ñoo jàng fii ci école bi. élèves yi mi ngi nii baa ngi nii am euh, sax école bi mi ngi am 182 élèves moo fi nekk. du CILCM doo ñoo fi nekk. ñoo fi nekk bàyyi ñoo fi nekk. Mm. ci ak élèves ah, ci wàllu inscription bi euh, ñaata la école bi inscription bi. inscription francs la laa fi fekk. dañu doon def ñuy doog a dugg cent mm. ñu yàgg ñi 1000 francs mm. ma ne comme jamono neexul nañ def 1000 francs rek ñëpp maase. parce que un eh, francs yooyu ngay wax. ci lañ jënd li école bi manqué ay soo ay pot ay sew sawaan yoo xamante ni ay cadenas ngay xëy soo fekk benn cadenas yàqu. ñu def ci ay bantak war yooyu da ngay daaj jëndaat cardena donc yu mel noonu rek moo tax école bi nekk jënd chiffon jënd sou loolu rek moo tax inscrit ñu def ko fi ñu dem ñuy inscrire waaw xam nga par rapport yenn école ban 1000 francs moom yomb na pour ñëpp te feewul 1000 francs yooyu ba tey am na ñu cotisé wul mm. démb dugg naa ci classe yi pour wax ñu cotiser wu nañu ko parce que 1000 francs xam benn yoon ci année la rek ku ne war nga koo cotiser yomb na trop 1000 francs kese la waaw ñu ngi si ñaare ni ñu ngi ci jaxante émission bi yan kàddu ngay dolli ci li nga xam ne war nañ la ko fee laaj te laaj ñu la ko wala loo xam ne nga koy ñaax mm-hmm. li nga xam ne mooy parents d'élèves bi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci école bi yor xale yi waaw ñi may ñi ma fi nekk daal maa leen sant parce que bi ma fi ñëwee aussi dañ naan gan la waaye gan ci école mais du ma gan ci ma fekk mm-hmm. parce que ñi ma fi ne fekk ñëpp xam naa leen xam nañ ma samay frères samay sœurs laa fi nekkal mm-hmm. te bu ma waxtaan naa ñoom ci ñu liggéey

loolu daal loolu daal bëggoon naa ko mu am loo xam ne dañ ko nga gisoon nañ ko fële te mhm. mu mu nekk genre sën te muy école ay xale di fi nekk mbalit a eh, ay jéego pour muy génn ko ci école waaw mbalit moom doon naa waxanteeg sa e pour ñu ngi ay barigo mhm. di koy dugal bu affaire paa bi bu ñëwee comme dafay romb souvent ñun ñu inscrire di fay mu ñu koy ramasser parce que loolu daal dafa a set daal parce que xale yi ay xale comme ni nga ko waxee ay xale ñuy fo mhm. dañuy laati mbalit te loolu baaxul c'est loolu moom ñu ngi ci taxaw bu baax ñu ngi ñu ngi jublu solo yan xanaa leen sant leen gërëm yéen waa Géewul Art mm. parce que li ma waxoon rek occasion bii ngeen ñu may mm. ñu jàkkal ak population mën a wax suñu soxla lii amuñu ko woon ba ñu ngi leen di gërëm leen sant leen jaajëfal mm. di ñaan yaa liggéey bi yàlla na gën a jëm kanam maye gën a jàppale barke Seydina Muhammad sant ñëpp gërëm ñi alhamdulilah waaw ah, merci euh, jaajëf directrice bépp di jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen ngi seetaan Gueoulart TV mhm. tey ñu wàcc si woon fii ci ñi euh, nga xam ne mooy école 3 nekk ci quartier bi ñu wax Nimza mhm. tey kat euh, ñu daje woon fi nga xam ne jigéen la dañ naan góor baax na jigéen baax na tey ñu fekk si jigéen ñu fekk loo xam ne tey perteel ci jigéen ñi mhm. tey jëm naa ne jigéen ñoo aaye kon jigéen ñi ngi leen di woo ñu jàpp ci li nga xam mooy école bi ndax seen école mhm. a mhm. jàppale jigéen ko ah, xam ne rek yaa ngi woon ci li nga xam ne mooy émission bi koo xam ne rek di leen wax ne fii ci école 3 nañ ci jàpp lépp luñ ci mën a jàpp rek mm-hmm. di woo jigéen ñi di woo jigéen ñi nga xam ne ñi nga nekk Ndakaaru mm-hmm. ku mel ne Caroline euh, ak euh, li nga xam ne mooy Kouka Diouf mm-hmm. ñi ngi lay ñoo xam ne rek ñi ngi foofu ci Dakar seetaan leen di woo pour ñu jàppale xam ne moom mooy école 3 ñi ngi leen di jaajëfal ñi ñuy def chaque mardi yi ñoo leen ko digoon def nañ ko te dañ ko fas yéene defaat ci yi ñi ngi leen di jaajëfal di leen jox di dañoo ñoom